Maodo Maodo Malick yaakaar naa moom ni mu tudd mu koy doxalee gëm sa bopp du noonu waaw moom gëm na boppam gëm na boppam am na de manière vérifiable et constante euh, une expérience et une compétence politique avérée li muy wax xam na ko te daf koy wax ci teggin daf koy wax ci dal daf koy wax ci xam-xam soo amee xale yu mel noonu da ngay am yaakaar pour nii kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax